الحمد لله الكريم في المنن على استغال بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi ñu dellu si waat ak yéen ci ndimbalu sunu boroom ci 1493 Eh, di tëj nag liñ doon waxtaanee ci ginnaaw màggal gi fas yéene jublu ci gàmm gi incha allah ndax benn mbokk ci taskir rek mi ma koy fàttali démb ci day mel ni daal saa yu événement l'islam amee am na benn tomb buñ cay jël rek nekk ca nun ñépp ba duñ bàyyi xel sax jàngat yu am solo yi ñu waroon def ci côté euh, positif bi ci côté gu baax gi ndax saa yu jàllee rek baataa gàmmu ay gis gàmmu laaw bi mu jàllee laa la sëñ Moustapha wax sëñ Moustapha wax lu mat ay waxtu waaye ñu jël ca benn minute magal gi daaw bi mu jàllee ndaw si yëgan ci jumaa ji ca lañ nekk ca lañ nekk ren ji gis nga ko mel ni loolu daal ñu mbokk politiciens yi di def ci léeg-léeg ñu sulli loo xam ne wax dëgg yàlla <coughs> foofu du palaasam ngir nëbbe ko nëbbe ko luñ bëggul nit ñi wax ca loolu mi nga am ci diine ji de lu mat a bàyyi xel la moo tax démb ñu doon indi wàllu xam-xam ñi ciy raw lu reexee na di liggéeyee ak ni mu amee solo ba daj aalamul islam bi yépp ci màggal gi moo tax démb ñu doon ko indi daanaka jóge ci eh, gàmmu màggal dugg ci gàmmu alxadiimu la ak maxduum alxadiimu mooy kii liggéey almaxduum mooy ki muy liggéeyal loolu ay iskale la yaay ñaari iskale yu sosoo la yonent bi nga xam ni amuñu kenn moom dong lan am ndax moom lañu yàlla booleel moom la jibril daa waxal ni ko sa borom nee na moom mooy wax ak jullit ñi moom la yàlla yaral boppam jàngalal ko boppam ba bi mu ni koy présenté moom sunu boroom ñu mooy seen royukaay dañoo wax ni ay jikko yu kawe la yor jikko yu mag la yor doon jikko yu baax rek waaye jikko yu baax yoo xam ni dafa kawe lool dafa màgg loolu la ko wax tagg ko ci mu ñëwoon ci foo xam ni moo gën a ñàng fi fi fi fi suñ mag ñi fekkoon lislaam ndax fekkoon lañ fi ñoom ñu gëm fekk nañ fi ay jullit sunu mag ñi ñuy wax su ma nee mag ñi nag ndax dama ciy jublu euh, la dale ci Seexu Omar Taal radiallahu anhu fuuti yu mujaahid bu mag boobu euh, la ca dale ba ba ci jamono jiinu toll su ma nee mag ñi nag ñooñu laa ci jublu su may wax lu génn réew mi dinaa wax beneen baat su may wax saaba yi wax ko su may wax taabiina yi wax taabiina yi waaw ñoonu dimbali ba li saxaaba yi liggéey rôle bu am solo bi ñu liggéey yonte ba muy ñëw dafay fekkul woon kenn koo xam ne xam na yàlla ku gëm yàlla non seulement fekkul leen fi waaye dafay fekk ñu am seeni àndaad yu bare bare bari di ko jaamu fan lañu koy jaamoo bërëb bi gën a tedd ci kaw suuf muy lan mooy euh, baytulal xaram fa lañ doon jafe exposé yooyu xoolal suñu borom rek néeg bu mu santaane ñu tabax ko mu joxe ndigal li mu gën a tedd ci kaw suuf am benn fettere bu suñu borom bàyyi yéefar yi dafa exposé seen àndaat yooyu seen yàlla yooyu ñu liggéey seen bopp xool suñu boroom subhanahu wa mu yónni kenn ci ku bokk ci nit ñi rasulun min anfusikum waaw ah, rasulun min anfusikum ndaw laa yónnee lu bokk ci yéen am day am bàyyi waaw di eh, tëdd di nelaw di yew di jëfandikoo ndox ak dugub gis nga rasulun min anfusikum waaw ah, waaye nag asisun asisun ku tedd nag kooku bi muy ñëw loolu la fekkoon foofu mu nekk kenn rek kenn rek ku ñu xeeb lool bu ñuy lim fuqaraa yi dañ ko ci boole ñu ñàkk ñi bu ñuy lim ñi jàngul illettré yi dañ ko ciy boole bu ñuy lim ñi nga xam ne euh, amuñu maanaam doxuñu defuñu commerce génn ba xam bitim réew ak yu mel noonu dañ ko ciy boole fameem bokkul ci famille Richard mbokk yi kon di ab jirim boo xam ni amul chance am bàyyi ak ndey bu ko yar jàngal ko ndekete loolu lépp lépp lépp waajal suñu boroom moom moo tax moom mu jagoo loolu ba noppi raw ñëpp raw ñëpp moo tax e, léeg-léeg nga dégg jullit bu jàng beneen xam-xam bu dul lislaam ba fooy di bind di wax ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu doon wax grec yi seen xam-xam booba moom la doon wax maanaam alxuraan lay weddi te nee na ab jullit la yàlla yàlla yërëm ko kooku sax ki ma ci mujj dégg mu di ko wax fii nu gis ko ci télé yi moom wàcc na liggéey yàlla yàlla ko jombul tuub na ko ama muy génn àdduna ndax nit ñi dal nañ ci kawam lool kon moom moomee mooy ñëw nag ñe jëkk ñu ko jëkk comprendre daal di wuy si woote boobu mbokk yi muy saxaabatul kiraam waran cee taxaw nag tuuti ndax bu ñuy waxtaanee siira te mooy dundug yonente bi alei salatu wassalaam bi waxtaanee siiratu saxaaba wa taarixuhum nga xam ni min aqwa masaadiri al quwati al imaaniya wal aatifatu diiniya allati la tasaalu xasihi daawaatu diiniya taxtabisu minha lu bare bare bari mën nañu ko cee jànge biha majamirul xulub allati yusrahu intifaauha wa xumuuduha fi mahabi riyaai wal awaatifi wal awaasifi almaadiya masalan di taxaw ci saxaaba yi dafa am solo trop trop moo taxan xadimam ba doon sàkku yàlla may ko mu ak ci ànd ci am ci seen garaat googu ndax boroom xam-xam bi wax ni saxaabatul kiraam ñoom yàlla defal na leen loo xam ni kenn mënatu def la ñuy defal moo taxit kenn mënatu la mel ni ñoom euh, kon doo ko tëkkalee ak jëf yi ma leen bindeef ci seen ginnaaw ndax ba ñuy jaamu yàlla ku ci waru fas sax puuritu gémmiñ mi génn ci gémmiñu fas wi euh, ah? moo ëpp tuyaa bu ñàqu kaneen ku ñoom kon bokk ci ñoom am la solo ñooñu nag ñoom la suñ tubaa daan wax naa ayaa xaadimal muxtaaru laa tansa saxbahu fa man yan sa umu fal matxu matxul muqattaw yow mi ni da ngay liggéeyal rasulullahi alayhi ah, liggéey ba bu ci fàtte saaba de waaw boo leen ci fàttee ñoom saa yi sa liggéey boobu jógul foofu nga toog demul fenn waaw ñooñu nag kon waxtaani leen ndax fa la mbir mi déparé waxtaani seen taarix muy taarix bi gën a gën a dëgër ndax day taarix boo xam ne ngëm yàlla moom moo ko sos eh, ak yërmande moo ko sos diina moo ko sos xam ne du lañ mukk boobu ak léegi duaat yi ci seen taarix boobu ñoom saxaabatu kiram ci lay sukkandiku ba am résultat ku am résultat yaa ngi amee noo gën a mën a sukkandikoo ci doxinu saxaabatul kiram bu sell boobu nekk ay jumi sawara nekk géejug sawara géejug leer laa bëgg a wax goo xam ni ci ci ngay jëlee nga niitu ci ba leerlu ci ba am taal boo jaxal ba mu tàkk ba nga liggéeyal lislaam keneen ñëw jël ko ñu di ko wommante ñu di ko donante di ko donante ñoom ci la xol di dunde ba mën a joxe alalam joxe boppam ñoo fi fay ak réer waaye taal fi taalum ngëm yàlla upp fi ngelawul ngëm yàlla tasaare ko ci aalamul islaam bi aalam bi yépp ci continent yépp lislaam àgg fa joxe seen bakkan joxe seen alal gedd seen njaboot seeni tool seeni commerce seeni métier rek ngir rawe rawale seen ngëm ñu mujj suñu borom di leen tàgg nag yaay aaya nga xam ni kon yàlla mujj dem ba di di ca nag cité ñoom ci seenu njëggal nitu àjjana yooyu mu mel ni kon góor yàlla yooyu taxawu woote bii bañ ko déggee daal di gëm ñenn ñi seeni moroom woo leen convaincre leen ñu gëm ndax dangay gis ay saxaaba yoo xam ni Abubakar Siddiq moom moo leen dugal ci lislaam gis keneen koo xam ni keneen na ko dugal ci lislaam ay noonu ñoom nag dañoo sincère ci seen ngëm bokk ak li am léegi muy jullit boo xam ne du pratiquer ak jullitam waaw jullit boo xam ni sax day taxaw ci kanam mbooloo ñuy diglu mu wax lu dëppook lislaam mu wax soxlay boppam wala muy wax jëme ci boppam yëkkati boppam walla muy wax kilifaam gam yaakaar ci diina di ko teg ci palaasu yonente bi salaam comme li am léegi kaccet ca mag ñi nag mag ñi moom kaccet ca ñoom boo demee ci waxu alaaji Malik Si radiyallaahu anhu ma ngay wax ni awma dara ci jëf ju ma yaakaar yowmal xiyaam nee na bëgg yonente bi xoolal loolu nee na loolu dong laa yaakaar te den ci ñëw incha allah ci fanu gàmbu gi waaw ndax Sénégal am nga sensu mag ñi du ñëpp waaye ñi ëpp ci ñoom bind lañu bind nañu dërul yomb nag mag mi nga fekkewul ak dundam nga di ca wax te fekk moom bindul waaye xanaa dañoo bind ci moom ñu bind ci moom waaw kon sa abatul kilaam nga xam ni ñoom bañ leen wooyee jëme ci yàlla ak yonenteem ñu wax rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna allahu akbar tàllal seen loxo rasulullah yi mu tàllal leen loxoom ñu jaayanteeg moom ci seen alal ak seen bakkan ñooñu yow sunu boroom nu day dégg nañu wootekat bi woote jëme ci ngëm yàlla ni gëm leen seen boroom nun na gëm nañ suñu borom ñooñu foofu lañ toll waxaanan alayhim nufuusa um wa amwaaluhum wa asiratuhum seen alal ak seen bakkan ak seen njaboot ak ca ginnaaw la féete woon dañoo jiitaloon suñu boroom di diglu nekk ci asamu wa taa <coughs> diglu ñu wax leen ñu jofe gi rek déglu la di appliqué rek lu nag noog suñ sëriñ si léegi nun seqatunu loolu wax dëgg yàlla ñu bari ci nun seqatunu loolu yu bari yu nu naqari ñu di ko kaas ñiy juddoo ci biir tarixa yi bokk nañ ci ñi koy def waaye waaye def gi ñuy def lu jaaduwul it du tax nga ni kon léegi tarixa boobu baaxul bis bus bu ñuy def lañ cee def te jaaduwul dooni kon bis boobu nañ ko bàyyi baaxul ah aj màkk googu ndax dañ koy bàyyi ndax benn benn ya nekk ci biir di di def ay njombe am naa jigéen boo xam ni maa ngi koy nuyu aji la màkk ñëw mun ma sëñ bi ma de waaru naa ren ji ma daal damay tawaaf waaye eh, ci tawaaf tawaaf gu mag mag googu bu ñu génnee nee la mu xool fi tolloo caméraam bi daal dafa mel léegi dañ koo lancet léegi maanaam ba mu dagg nga xam ne kooku da doon lancet bëgg lancet li mu woddoo maanaam ba àgg ci caméra bi ci biir tawaaf bi waaw loolu da nga naa kon léegi nañ bàyyi tawaaf déedéet nañ yar nit ñi defar leen denal sa ñooñu nga xam ni dañoo dañuy yor mbalaanum armal ndeke ñi yor seen lancet wala leneen loo xam ne dañ ci mën a dagg ah, caméra yi jigéen ñi wala góor ñi ñooñu lañ war a wax waaye yéefar ba xamul yàlla bu ñëwee day reetaan sax ci bu ñu gisee euh, euh, ku ku amal yére lool jekk lool waaye ñëwul saw saw yaram li feeñ yow ku góor ki nangam ak nangam yooyu mbokk yi duñ wax yooyu laal duñ wax dent ñëw incha allahu tey ci buñ ko suñ borom mayee ci bar bi ci wàll ku mel noonu waaye tey dañuy bëgg a waajal weeru tedd bi nga xam ni alxames incha allahu lañ koy séntu bu feeñee ñu dugg ci dëgg-dëgg nag gàmm waaye saabatul kiraam ñooñu nga xam ni dëgg-dëgg rek ñoo yàlla dimbali leen ba ñu accepté leer googu lislaam ñu dugg ci yemuñu ca waaye bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa ba mu gën leen seen ndey gënal seen bàyyi am ñu ki ñàkkan sago lool ñu jël euh, euh, àdduna jaay ko jënde ko alaxira waaw ñu bàyyi woon xel ëllëg lool yowmal xiyaam ñu gëm xaybiyaat yi nga xam ni gisuñu ko waaye ki ko wax lañ xam ne li mu wax dëgg la ndax da ko wone ñu xëran lool ci woo nit ñi jëme leen ci lislaam bëgg a génne mbindeefi yàlla yi ci jaamu seen moroomu mbindeef ay jamaadaat wala laneen ñu génn ndax alislaam bi muy ñëw fekkoon nañu loon doon jaamu ndox ñuy jaamu sawar ñu jaamu jant ñu jaamu baayima alakul xaalin gis fii ñoo xam ni ay wasani yeju lañu fekk fi daal yàqute ci kaw suuf mbokk yi waxtu jot na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi waxtu jot na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi waxtu jot na asalaamaaleykum wa alhamdulillahi alkarim silmilan alastifaadi bi furudin wa sunan sakartuhu li an xad saxani li watani bi nafa ma anfani